la la mbindeef yi fam nga jumaa ji xàll yoonu mbàkke sengul daagul dugal tariku laay Fallu yaay rasuulullaay jam nga fa Makka fam nga ni li laay alaaji siyaara siital mu ne su laa ŋaññati yaa di suukar maa maam sa bali jël na ndam la bambaani fallu laayi fallum yàlla ala ci yam Mbàkke bu sey ni jaayam bamba di baayam falli loo di yaaram yaa jara way yaa jara joxi daaya yaa jara jaamum yaay borom mi la nag ñu leen santaat yàlla bu baax a baax ñu mbooloo mi nekk fii kon biir la gisee kon rafet leen njort ni kon seen aajo faju na yéen ñëpp ndax kii moom kenn ku ci ne bay ko lépp li nga xamante ne bëgg na ko mu fas ko ndax sëñ Fallou ngi nii toog kon bu kenn am loo xamante ne da nga koy sikki sàkk ci sa bopp wala nga koy sikki sàkk sa xol na ñëpp fas liñ bëgg di xam ni nit ki moom boo gisee médecin bi lay faj bul bàyyi ba mu dem nga nga door naan lii mooy sama jàngoro kon lépp li nga xamante mooy seeni jàngoro wax leen ko ko médecin baa ngi ni toog mu fajal leen loolu ndax ki nga xamante ni moom xam na jàngoro yi nekk ci yéen kon kooku boo ko waxee sa jàngoro faj jàngoro day daal di yomb kon sëriñ bi mbooloo mi ñu ngi lay siyaare di la masawu te xam ni bu capital rek boo fa toogoon mbooloo mi rek waroon nañoo mën a ñëw capital fekk la fa waaye lépp rek nga def ko ak uh, suñ jëmm ji baax ji nga xamante ni mooy sëñ Cheikh Mati lay Mbàkke nga xamante ne moo nekk ñun fii ci dëkk bi di ku baax di ku oyof di talibe sëñ tubaab bu wér boo xamante ni lépp loo xamante ni daayira bi mi ngi koy def wala lépp loo xam mbooloom sëñ Tuubaa mi ñu ngi koy def kenn du ko ci man kon loolu ñu ngi lay seereel ni moom de talibe sëñ Tuubaa rek la def boppam nit ku oyof la sëñ Seemat lay ku ko gis ci mbooloo mi da ngay jàpp ni moom nga gën a xamanteel ñëpp la jox yitte ñëpp la jàpp ngir jëmi sëriñ Tuubaa bi kon loolu boo ñëwee ba fii te séeralul la ko ah loolu day xaw a ci ñun mais ni ñu ngay seereel ni moom ku mat lim doon la boole ci oyof toy ndax bu ko neexoon tey jii kat maanaam mu ni sëtub Sëriñ Tuubaa la toog fee ñu fekk ko fa waaye tey ji ku ci xewlam tudd wala nga xewle lu mën a doon soo ko wooyee moo koy jiitu ñëpp bàyyiwul kenn képp kum gis ku ne mu ngi lay digal lu baax ak digal lu yokk suñu taalibe ñu dugal ñuy jaamu yàlla du diñu saxloo ci jàpp Sëriñ Tuubaa te bëgg ko wóolu ko kon loolu ñu ngi la koy seeral ci jëmmam jii te xam ni mbooloo mi mépp daal ñu ngi koy ceeral ak cant goo xamante ni am na fu mu tàmbali waaye amutub yemukaay kon nag euh, mbooloo maa ngi nii kenn ku ci ne ci yéen la nga bëgg ak la nga xamante ni mooy say mébét xam nga ko kenn ku ci ne na ko fas sa xolam te xam ni sëriñ bi xam na lépp su paree ñaanal ñu bu ko defee lépp loo xamante ni kenn ku ne façon nga ko te nga bëggoon ko mu jafe lool kon sëriñ bi ñaanal ñu ci loolu bu ko defee jafe-jafe yépp daal di jeex ndax moom lépp luy jafe ci dëkk bi ak lépp loo xamante ni maanaam lu lu lu xew ci dëkk bi la suñ jëwriñ yu baax yi di sëñ Yankoba wax na ko di siyaare sëñ Yankoba bu baax bu baax a baax moom mi nga xamante ni mooy jëwriñi sëriñ Tuubaa ji nekk ci dëkk bi ndax mate na lim doon ndax mbooleem ñi nga xamante ni ñoo tënku ci fédération bi nga xam ne moom la sëriñ Tuubaa daayira sëñ bi mu jiite ko lépp li mu ci war a dox mi ngi koy dox daayira bu ci nekk lépp loo xamante ni ndigal la loo xamante ne lu mu ñu war a digal la mi ngi koy digal oyof toy te saa bu ne ñu dëkk ci ñoom diñu jàppaloo liggéeyu sëñ Tuubaa bi ak fu daayira nekk mu lay soññ nga dox ci liggéeyu sëñ Tuubaa bi loolu it ñu ngi koy seereel sëriñ bi te xam ni moom it euh, place bi ñu toogee mate ko sëkk kon nag sëriñ bi ñu ngi lay siyaarewaat bu baax di la ñaanalaat suñu borom guddal saw fan wéral say cër di la ni sa euh, rakk ju baax ja sëñ Ibrahima Khalil moom it ñu ngi koy seeralu ak cant ndax saa bu fi masaana ñëw rek ñëw na fi teg fi tànkam kon nag sëriñ bi ñu ngi lay seeralaat di la ñaanalaat suñu borom gën laa guddal sa fan wéral say cër ndax sa yàgg fi rek mooy suñu njariñ kon nag yàlla na fi yàgg kon taalibe nga ñaanal leen ñu yokku ñi bëgg am ay kayit am ay kayit ñi bëgg am am ay ay eh, amub xaalis am xaalis nga ñaanal ñu ci dëkk bi ba nga xamante ne dollar bi nga xamante ne mooy jafe-jafe bi nga xam moo nekk ci dëkk bi nga xam ni képp ku daan yóbbante eh, benn tey ñaar nga koy def door a mën am li nga bëgg mu métti ci taalibe yi lool sax nga ñu bëgg nga ñaanal ñu si dollar bi wàññeeku bu baax a baax a baax ndax ñu man di am lu ñu yóbbu ca njaboot ga ak di ci joxe addiya kon loolu sëriñ bi ñu ngi la koy seereel di seerewaat suñ mbokk yi nga xamante ni mooy suñ mbokki tiijaan yi ak suñ mbokki laayeen yi nekk fii ak suñ mbokki xaadir yi nekk fii di la wax ni la sëñ Sidi Muxtaar waxoon de ni bëggatumaa dégg kii tiijaan la bëggatumaa dégg kii murit la lépp luñ nekk ñun ña nga ca suba ba jot ñu nit lépp luñ nekkit ña nga ca suba ba ngoon jot ñoo doon ñëw fii di nuyoo nga xam ne ànd nañ ànd bu rafet lépp lu ci sa waay nekk rek luñ ci yëg ci sa morom kenn ku ne bàyyi na sa yite ñëw toog fi ñu ngi lay seeral ñu ne ak cant goo xam ne am nañ ko ci ñoom ak suñu digganteeg ñoom nga xamante ne doo ànd rek te jëm yàlla ji tax loolu ñu la koy seeral kon di jox rek euh, sëñ Yankoba mu sànni ci ay kàddu su noppee ñu jox sëñ Muxtaar am ak cant cant yu mu ci doxale bu noppee jox sëñ Cheikh Madi lay door a jox sëriñ bi bismillah sëñ Yankoba alayhi ñoo ngi siyaare mbokk yi fi teew yëpp bàyyi ñu kenn te teg siyaare boobu ci loxol sëñ Moustapha moom dafa baax rek dina jox kàddu waaye moom kenn la ci ñun koo xam ne ay waxam yu bàlle su nuy wax ndax it kenn lañ ci seen biir rek di dong boo xam ne dañoo ànd liggéeyal sëriñ tubaab bii kon sëriñ bi Mbàkke ñoo ngi lay siyaare bu baax di la seereel seen pësteef ci ñun ak seen taxawaay bépp liggéey boo xam ne daara ji yëkkati na ko muy kër sëriñ gii ak liggéey yi ne ci biir dëkk bi yëpp ñoom ñii kenn mënu leen ci buñ bokkut ci ñoo ca manit kenn du leen ci raw loolu ñoom la koy seereel muy mbooloo mu dëggumu mu moo xam ne ñoom ñii ko jiite waxtu wu nekk lépp luy liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi rek taxaw na ci taxawaay bañ ci war a taxaw eh, kon loolu Mbàkke ñoo la koy seeral bu baax eh, di ko seeral Sëriñ Cheikh mii ne moom sax mu ci seen biir waxtu ne dëkk yi bor bii ay nit lañ ñoo xam ne ñu positif lañ ñoo xam ne liggéey Sëñ Tuubaa bii ñu seq daal kenn mënu leen ci kon nag am nañ kontaan bu baax ci bi ngeen sàkkoo sëñ bi ñëw fii mu ñëw fii moom it ñoo ngi koy ñaanal bu baax Mbàkke ba taxawaay bi yàgg eh, fan yu gudd lool ci barke Sëriñ Tuubaa suñu xol sedd na bu baax a baax jërë ngeen jëf waaw. sunu sang bu baax bii nekk ci suñu biir muy sëriñ Cheikh Mati lay di teg siyaar bi nuyoo ci loxo mu joxal ñu ko suñu kilifa gi nga xamante ni moo fi teew muy sëriñ Abul Baraka Mbàkke yàlla na nga fi yàgg te wér di sàkku ci mbokk taalibe yëpp kenn ku ci nekk wax ni sëñ Abdou Baraka yàlla na fi yàgg téwér barke borom Touba kàddu yi nag xam naa ne du gudd ay kàddu la ay yu ak i cant ak ngërëm goo xamante ni mbokk taalibe yi nga xamante ni ñoom lañu ànd liggéey bi te ñu bootu ci suñu ginnaaw jiital ki nga xamante ni mooy Cheikh Moustapha Seck mii te mu mate li mu doon sëkk nag ndax bañ ko tegee ci suñu kanam ba tey lépp loo nga xamante ni yëkkati nañ ko ci liggéey sëriñ tubaab bi moo nu ciy man fuuf ëpp ñu ci Pastef fuuf wax dëgg yàlla mbooloo mi amel nañ ko cant goo xamante ni am na tàmbaliwaay waaye amul fu mu yem di la ko seereel di ko seereel sëriñ Cheikh mi nga xamante ni moo fi teew ngir moom day kenn la ci ñun ngir biñ duggee ci dëkk bi rek danoo fas yéene liggéeyal sëriñ Tuubaa ci dëkk bi ngir liñ ci jublu rek mooy danoo bàyyi ko Sénégal ñëw ci réew mu sore bañ lenn loo xamante ni sëriñ bi bëggu ko woon ñu bañ caa séen lenn loo xam suñuy waajur bëgguñ ko woon ci ñun ñu bañ caa séen moo waral ñu amoon yéene bu rëy boobu te amuñu woon doole ju ko àggale fi ñu ko bëgg bi ñu ko amee ñu wax ko moom mii daf ñoo joxoñ ay jëwriñ ni ñu jiital leen leen teg teg leen ci seen kanam bu ngeen ko defee liggéey bi dina àgg fi ngeen ko bëgg te dañuy tënk rek ba ñu ko defee ba tey yaakaar naa ni daara ji ci diiru ñaari at dong la toll waaye yaakaar naa gis nañ Pastef gi ni muy doxee di sant nag bu baax ak di ko gërëm te di ko ñaan nga ñaanal ñu ko moom mi mu yàgg fi loolu te ba yan bi nga xamante ni mbokk taalibe yëpp àndandoo nañ ko teg ko ci loxoom mu àggale ko fi mu ko bëggee di sant nag bu baax ci bis bii kawe na suñu njott loolu wax dëgg yàlla ndax ku xool daara ji ni muy doxee. fañ ko tàmbalee ak fi mu àgg léegi yéeme na waaye loolu lépp ci jëmmam jii rek la jaarale muy sëriñ Cheikh ñu ngi lay ñaanal Mbàkke yow yàlla na nga fi yàgg loolu te wér ba liggéey bi nga xamante ni yaa ngi koy saytul sa maam ju baax ja Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul nga àggale ko fu la soob te ànd ko mbokk taalibe yëpp di wëlbatikuwaat di santaat mbokk taalibe yëpp ci kàddu jëwrin di santaat suñu jëwriñu sëriñ Tubaa ji nga xamante ni moo nekk ci kanam te boot ñëpp képp ku taalibe nekk ci biir Argentine rek yàlla boot na la ànd ceeg woyefte gu ne wax dëgg yàlla moom nañ koy ñaan rek mu yàgg fi loolu téwér ndax li ko war rek lay def suñu borom teel ko fan wi teel ko kàttan gi ak wér gi ba liggéey Serigne Touba bi fi mu koy fas yéene yóbbu mu àggale ko fa ñu ngi tub bu baax ci kàddu yi nga xamante ne dañ koy yëkkati ci suñu kanamu kilifa yi waroon woon sax ngir bu suñu kilifa yi waxee ba noppi ñun waruñ cee teg kàddu waaye day yóbbante boo xamante ni mbokki taalibe yi dañ koo jël teg ko ci sama loxo ngir ñu santal ko Serigne Cheikh Mbacke mii ak suñu jëwriñ ji nga xamante ne moo fi nekk muy Serigne Moustapha mbokki taalibe yëpp ñu ngi lay sant di la ñaanal nga yàgg fi loolu téer di santaan mbokki taalibe yëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah gis ñeneen ñoom laay jëkk a gis ñu bëgg nga beral leen loxo nag ñaan leen ñaanu xaas ba buñ fi jógee rek ajo yëpp daal di faju ajo yi nag nañ ko fas ci xol yi rek ndax sëriñ bi moom kattanam ak man-manam weesu na foofu kattanam ak man-manam weesu na foofu ba mu tegee tànkam fii rek gëm nañ ni ci la aju yëpp faju waaye nag dañoo bëgg daal mbakke nga beralal leen loxo daal loolu daal moom mbakke ñu ngi koy dagaan di ko sàkk bu wér-wér ci suñu njaboot gi ndax suñuy dëkkandoo lañ doon dëkkandoo yu neex a dëkkal nag waaw lépp luñ xewle waaye lépp luñ mën a yëngu ci sëriñ bi ah, bu ne ëcc rek ñoom da daanaka ña nga ca kanam kon nag Mbàkke loolu rek moo doon suñuy kàddu ñu ngi jéggulu ndax jataay bi yàgg na toogaay bi yàgg na te fan yi yëpp ah ñu ngi lay sonal ndax danga waroon toog fa nga toog rek ñun ñëpp képp ku nooyee ci réew mi rek fekk la fa nga nekk teral la ngir jëmmi sëriñ bi waaye nag sax mbaax ak bëgg a di dimbali jaam ñi rek a it xam ni yow foo teg sa tànk bii bokkut ak foo ko tegul loolu rek moo la tax di dox di wër ci biir taalibe yi waaye bu la neexoon kon du jaroon sax ngay jóge Touba boo toogoon tuubaa yónnee rek ah Mbàkke loo wax rek danañ ko defee na ko bëggee waaye nag yéen fu ngeen dem moo gën fu ngeen demut kon sa tànk bi nga teg fii suñu xol sedd na ci guy doy na sëkk wala rasim doy nañu sëkk ñëw gi nga ñëw fii Mbàkke doy nañu sëkk sëkk sëkk sëkk kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm soxna yi nga ñaanal leen ñoom it ñu amee xéewal ndax sonn nañ ci àll bi loolu àll bi mitti na kon nga ñaanal soxna yi tamit bu baax a baax a baax a baax yàlla defal leen ay xéewal ñu mën a delluwaat seen njaboot te mbàkke comme dama waxoon démb fee rek loolu laay waxaat nga ñaanal ñu ñu ñibbiwaat sol suñuy dàll te yóbbaale sërite bu duun waaw yàlla nañ bokk ci ñi nga xam daal bu ñuy dellu Sénégal dañuy dellu yóbbu suñuy dàll sol ko ba pare yóbbaale sërite bu duun kon daal wasalaamaaleykum wa rahmatullah mbàkke njaboot gaangu jërëjëf ngeen baal na wax salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbooleem mbokki jullit yi dëkk xosa paas sëriñ Sidi Muxtaar dafa am lu mu wax léegi sëriñ bi ma a ah sëriñ bi de xam naa ne du ko mën a ñàkk def waaye kon gaa yi ñu àndal ñu jógee Buenos Aires ak la ko wër xamu nu ñuy def ak ñoom ak sëriñ bi ndax sëriñ Sidi Muxtaar dafa ñaan sëriñ bi Bakar feggu waaxoo sopaas te xam naa ne sëñ bi dana ko koo defal ma ne kon nag ñun ñi ànd ak waa Buenos Aires xam naa ne xaw ma dañuy sakk seen nopp wam déet ba xam ndax sëñ bi moom fokk mu defal doomam ji li mu wax fii sëñ bi nee na mi ngi leen di nuyu tey nag dafa am lu ma daan wax ma daan ko fakk loolu laay jëkke muy mi ngi nuyu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gi nekk ci réew mi ndax kat xorom si moom maam Cheikh Ibra wax nañ ko ne sëriñ Assane mii mooy jëwriñ ji mi ngi leen di nuyu bu baax a baax jërëjëf mi ngi leen di nuyu itam njabootu maam alaaji malik si ak Cheikh naa Cheikh Sadibou ak waa Yoof maam Imaamullah Mahdiyu di jël cant gi di ko teg ci loxol jëwriñ sëriñ Moustapha Seck ak sëriñ Yankooba bi nga xam ne moo jiite mboolem njabatu sëñ Touba gi ci réew mi waaye mu ngi leen di ñaanal ñaan koo xam ne mu ngi koy teg ci loxol doomam sëriñ Sidi Mokhtar Mbacke mii toog te am lu mu ko wax ci yéen di leen jottali nuyoo sëriñ Touba sëñ Mountakha Mbacke di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba la mu am yéene liggéeyal ko maamam seexul xaddim mu def ko na mu ko soobee te nu ànd ko moom te am ci ngërëmul sëriñ Touba di leen jottali nu yóbbu waa kër alaaji Mouhamadou Falilou Mbàkke yépp ak njabootu seexul xaddim gépp di leen jottali it nuyoo rakkam taalibeem muy sëñ Ibrahima Khalil moom seex Mouhamadou Fadal sëñ bi nee na mboolem li mu ko waxoon ci yéen bi mu fi agsee gis na lu kawe loolu fekk na fi ak taalube fekk na fi ñu bëgg sëñ tubaa waaye fekk na fi ñu fopp fonk Cheikh Mamadou Fadal te te sopp ko lool sëñ bi di leen nuyoolee ak ñaari jëwreem yi ñu ànd muy alaaji gee Jang di jëwreem yu dëkk Fatick ak alaaji Njaw Jóob mu ànd ak ñoom Sénégal ba fii mi ngi leen di nuyoole ak ñoom ñoo ànd ak moom yoon wi sëriñ baa ngi leen di sant bu baax a baax di leen fàttali li nu fi indi te bàyyee ndenu fi muy liggéey ak jaamu yàlla nee na sunu dugg ak sunu boroom nanu ko bàyyi xel bu baax a baax nee na jaam bi lépp lu mu bàyyi xel amaanaa du ko bett kon nanu bàyyi xel digg sunu diggante ak sunu boroom ci santaane yi te moytandu ko tere yi sunu kem kàttan sunu boroom daf noo daf noo sàkk digal nu tere nu te digalu nu lenn lu nu munta bàyyi wante sëñ bi nee na nu lenn lu nu munta bàyyi digalu nu lenn lu nu munta jëfe terewu nu lenn lu nu munta bàyyi maamam ju tedd jakat maam Cheikh Ibrahima Fall daf koo tënkoon ci ñaar kàddu rek muy jëfe ndigal bàyyi tere jëfe li mat a jëfe mooy li nu digle te suñu boroom digle ko yonent bi digle ko Seexul Xadim ñëw digle ko bàyyi li mat a bàyyi mooy li suñu boroom tere sëñ bi nee na na ngeen ci góorgóorlu bu baax a baax nee na na ngeen ci bennoo ni ko suñu borom waxee na ngeen ko jëfe noo nii waxtasimu bi abdillahi jamii'an wala tafarraqu na ngeen jàpp ci buumu sunu borom gi te bañ a tàqali ko sëñ tubaakat kat yi la bëgg ci ñun ba tax nu daje fii. ngir jëmmi sañ tubaa lii sëñ tubaa dong ko man mbooloo mu mel nii jóge fan nu jóge mu sori lool nii nu koo ci genn buum mbooloom sëñ tubaa ko ma nii ci waxtu yii nga xam ne ku ne xam ne ne waxtu yi naqaree dajale la kon sëñ bi nee na na ngeen ci góorgóorlu baax topp ci ki nga xam ne sëñ tubaa ko jiital mbooloom sëñ tubaa ku ca jiitu rek sëñ tubaa la tànnal boppam nangeen ànd ak moom liggéeyub sëñ tubaa bii démb wax nañ ko fële ne leen mbooloom sëñ tubaa fu ñu daje ka xel ya dem rek moom la sëñ tubaa joxoñ ànd leen ak moom liggéeyu sëñ tubaa bi liggéey boo xam ne si boo ci jàppee mu dox boo ci jàppul mu dox sëñ bi nee na jàpp ci muy dox mu nga dese sag ba mu mel ni yaa koy doxal te doxaloo dara sëñ tubaa doxal lépp sëñ bi nee na ngeen góorgóorlu àndandoo lu waay yéene sa bopp na nga ko yéene sa moroom bu leen noonoo bu leen ñooroo nun ñëpp sëñ tubaa ñu jiite ñun ñëpp sëñ tubaa ñu yilif kenn jiitewul kenn kenn yiliful kenn sëñ tubaa yilif ñëpp moo jiite ñëpp sëñ bi ne a ngeen sax ci loolu yi te ngeen di wuy si wootee sëriñ tuubaa yii sëñ bi nee na wuute woote sëriñ tuubaa wóorul ci murit murit bu ko def da nga koo xamul saa boo wuy see woote sëñ tuubaa sëñ tuubaa takkal na la gàllaaj gu bees teq ba bis ba dellu si kon ñàkk wuy si woote sëñ tuubaa wóorul ci murit sëñ tubaa xamul ki am xamul ki ñàkk jaamu yàlla bi la xam créature sunu borom bi la xam mu bàyyee laa xol bi ngay bëgg ak bañ te bëggoo ci kenn ku dul sëñ tubaa nga tànn ci sëñ tubaa nag ñu koy wootee nga toog fa nga toog naan gaa yi li ñuy woote dafa bari nee na bu leen ko def dee leen daje ngir jëmmi sëñ tubaa bu ngeen bëggee am doole sëñ tubaa lu ngeen nekk mu fekk leen na nangeen sax ci liggéeyam sëñ tubaa bii sëñ Muntaxa mee de am ngir fas yéene liggéeyal sëñ tubaa am pas-pasum ànd ko jullit yàlla yi ak taalibey sëñ tubaa yi ku am ku am ku am sens yaa ca yaa cay bokk wante nag ñuy liggéeyal sëñ tubaa di ko laajal sëñ Yankoba woo wala sëñ Moustapha woo wax la lii nga commencé jàmbat njàmbat baaxul nañu wàññandiku njàmbat li te góor góorgóorlu fas yéene liggéeyal sëñ tubaa bu nu ko defee sunu léppay jàppandi sëñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di leen wax waaw góor waaw góor nag day baat bu gàtt waaye ku jëful dara du ko dégg sëñ bi wóor na ko ne jëf ngeen seral leen ngeen ab xolom doomam jii mu fekk fii mu wax ko li mu ko wax nee na noonu yi la leen ko sëñ fallu yi defale nee na koo amuti kayit dana ñaan ci sëñ fàllu nga am ko na nga ko bëgge ki ko amit këri bi dana barkeel ci say loxo nga dem ci sa njaboota ko ñëw koo xana nag day jaay wala lu muy def lu mën a doon yàlla na ko sëñ fàllu barkeel ba nga ba nga jekku ndigal na ko maam Cheikh Ibrahima Fall waxe sëñ Moudou Aminata Fall daana wax ne yàlla nañu jekku ndigal jekku ndigal mooy am lu na géej ba bu sëñ Touba santaane ñu def te ba def lu kawe suñ jot sëñ bi lii mu wax lii sëñ bi da ciy dolli ne yàlla na ngeen di takk lu wóor di ko yóbbu te kenn bañ leen a takk yóbbu ndax kat da ngeen ñëw ngir liggéey si lu ngeen yu ngeen joxe addi ak lu ngeen si yore seenu njaboot sëñ bi nee yàlla na leen di jàpp ne noonu yi sëñ bi nag xolam sedd na lool da bu xolam seddee lu ma wax sëñ fal dana ko def yéen nag li leen sëñ bi wax def ngeen ko li ma leen wax def ngeen ko xool leen seen bopp ren ba déwén ba xam mu ngi ñaan nag ci dara daraja Cheikh Momadou Fadal saal bii mboolem ko fi ñëw saal bi la wax de yàlla boo fi faatu ba déwén yàlla bu la fi xat damm ba déwén nga ne cek kaw boo wéradee boo wéradee nga wér la mën a dal na nga wér mën a sàkku ji àddi tam lay jàppandi lool ci barkab seex Momadou Fadal yàlla yàlla na ngeen mucc yàlla na ngeen am jàmm li leen fi tax a ñëw daal sëñ bi nee na insha allah sëñ Fallou dana leen ko defee ni ngeen ko bëggee te ngeen am ci pas-pasub liggéeyal si sëñ Touba nag bu ngeen ko defee rek mu ñëw dafa am loo xam ne sii nag doon nañ ko soññee démb fële muy tuubaa ci kanam sëñ bi daa bëgg ngeen góor góorgóorlu ci Touba ci kanam jooju yi day liggéey boo xam ne kat sëriñ Muntaxa sëriñ Touba fonk na ko lool ndax barki démb rek am na lu baree bare lu ñu jébbale muy ay yoo xam ne day seetal. mbaliitum Touba te yaakaar naa luy setal tuuba julli bu ne war na cee dugal loxoom ab taalibe moom waxaale ko Touba ca kanam nag bokk ci ña koy jëmale kanam yaakaar naa moo gën a moo gën bañ bokk dëkk boo xam ne boo bokkee ca la koy jëmale kanam dana jëm kanam boo bokkul ca la koy jëmale kanam dana jëm kanam te nga war a ànd ca la koy jëmale kanam yaakaar naa bokk ca moo gën bañ caa bokk na ngeen góorgóorlu ci liggéey boobu boole ko liggéey yi ngeen yor ndax am murit du wàcc. am murit fépp teguñ na ko ci kuusu bàmmeel am murit du wàcc sëñ bi nee daal li ngeen di liggéey ak fu ngeen ko mën a liggéeyee ku leen tee liggéey moom duutu ko tal mukk yéen ba ngeen tal ko na ngeen dalal seen xel bu baax a baax ci ñëwam bii te xam naa ne bu fi ñëwee da xam ne sëriñ Fallou ñëwoon na fi sol mbubu maam Cheikh Ibrahima Fall sëriñ bi da ngeen yokku da ngeen mucc da ngeen am jàmm incha allah na ngeen dalal seen xel bu baax a baax a baax yërmaande ji mu jëlee Touba indaale ko fii biir na ma ne dana ko sëñ Fallou dana ko ko defal ndax keroog ba muy tàggu ci Cheikh Mamadou Fadal la mu bokk ci la mu fas ñun ñu xam ko mooy nee na de képp koo xam ne sa naaj sa aajo nar naa fajo nang ma teg ban ma teg la bët waaye ku sunu boroom nar sa aajo norta fajoo ci gis ma ma gis la bul ma gis bu ma la gis kon nañu daal xel nan am xel mu dal ci ñun ñu toog fii jàkkaarloog moom ndax xam ne sunu aajo yëpp sëñ Fall dana ko saafara jërë ngeen jëf maa ngi sàkk nag yéen ñëpp ngeen ñaanal ko mu yàgg fi lool ba li mu bëgg a liggéeyal sëñ Fall lépp mu def ko na ma ko soobee te nu ànd ko moom ci barkeb sëñ Touba jërë ngeen jëf te ngeen ñaaneel sëñ Sidi Mokhtar mii mat na sëkk li mu doon bu ngeen daje wutoon it dana fi ñëw nuyu si ko ndax doomam la joo xam ne si ma nga fa mu war a nekk tegu fa mu war a tegu la ko ay waay juróom jàngal la ko ay waay juróom yar ma nga ca bu ngeen daje wutoon ngir yéen it moom mi jaral na ko ñëw fi kon na ngeen xam ne am ngeen ku ngeen nekkal ko xam mooy seen sëriñ Touba. kon na ngeen ci jàpp bu baax ci déglu ay ndigalam te ko jëfe du leen du leen digal mukk lu jëm ci boppam du leen tere mukk loo xam ne si gën euh, gën a diwut ci yéen lu gën a di ci yéen dong la leen di tere kon sëñ baa ngi leen koy gën a dénk jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullahi ngeen loxo yi sëriñ bi ñaan kenn ku nekk fas la nga bëgg boo ko amul nag du ci sëñ fàllu ci yow la yow xoolal sëñ fàllu ak noo ko fase digal bisimilah nañuy wax amin bu ñuy jox da ngay nangu amin nee na jërë digal bisimilah